ngi taxawoon ci jëriñ yi ñuy jëlee ci xadiis ji ji fanweereelu xadiis ak juróom benn wala boog lenn ci ay jëriñ jëriñ yi pour ñu mën leen dajale fokk ñu mën a peek waxi yonentu sallallahu alayhi wa sallam loolu kenn mënu borom xam-xam yu mag yi sax mënuñ ko sakkat suñ place ci ñun li ñuy njëkk a jàngee ci xadis ji mooy njëriñal jëriñe jëriñal jëriñe xadis jaan ñuy ñaax ci xettali képp koo xam ne nekk na ci njàqare dund ak jullit hmm. ngir teraangaal ak jullit hmm. waaye ku mu koo fekk mu nekk ci jafe-jafe hmm. nga mën ko caagelee yonentam lay ñaan lay ñaax lay ñaax ci nga génne ko ci alhamdulillah képp koo xam ne nag xettali nga ak jur bu ne ci jafe-jafe ne yàlla xettali la jafe-jafe ci jafe-jafe yaa yowmal qiyaamati nafasa an muminin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu anhu kurbatan koroog bi yawmal qiyaamati jafe-jafe nag mën naa nekk jafe-jafe yi alal mën naa nekk jafe-jafe yi yaram mën naa nekk jafe-jafe yi xare amut alal baa ku yaram am am jafe-jafe baa ku ñu jàpp ci xare baa mu neccal nga xettali ko démb de yàlla tudd na yowmal qiyaamati ngir ñett mbaa ñeent ndax mm-hmm. bés xam ne mm-hmm. ci la di taxaw lu mm-hmm. bés di taxaw yawma taqumu saa'atu bés la boo xam ci la ñëpp di génn ci seen bàmmeel yi taxaw yawma yaqumu naasu bi rabbil alamin bés la boo xam ne ci la seede yi di génn ñeel ju boo xam ni réer hmm. ci boppam mooy wax ne bés bi dee bés bu jafe hmm. nag hmm. gannaaw mu ngi nee woon ci àdduna topp ndigal waayi tere te bokk ci ndigal yi koo gis mu ne ci jafe-jafe nga xettale ko moom yàlla fay woyofal bés ci moom dafay yombal bés bi ci moom ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا képp koo xam ne yaa ngi ci loolu xettali dund ci jafe-jafe xaral jafe-jafe yaram waaye jafe-jafe bu mën a doon xamal ne al jazaau min jinsil amal xettali la yàlla dana la fay xettali la loolooy wane ak màndu mm-hmm. na nga defee ni ñu mm-hmm. fayee la ni mm-hmm. waaye dafa am xettali ak xettali xam nga ne sax xettali yow jaam bi bokkut ak xettali yàlla ko comparer ak li jaam di def kon yoon bi mu la dencal moo gën a mag fuuf fekkoon hmm. ne genn xettali rek nga la xettali hmm. xettali rek kenn mënu ko comparé ak yeneen xettali hmm. waaye xettali moom nga xettali sax genn la ndax alxasanatu bi ashri amsaaliha waaw baax li nga def fukk la lay fayee lu tuuti tuuti laa sabi imiati def dañ ko waxee ci suratul baqara ولا يسر والله مضاعف لمن يشاء الله واسع عليم loolu bi sax mën naa ëpp juróomi at ngeen def muy pour lu ko deex kon xadis jaan bi ñaax tamit ñu bàyyi suñu xel ci yowmal qiyaamati lépp lu ñuy def fi mu xam ne fi mu ngi gën a dikk yowmal qiyaamati dem baax na dem ban dama lay yàgg bi laay boo defee danañu xiir ci baaxam mm-hmm. ndax kuy liggéey mm-hmm. su ko leeree de bés dana ñëw ñu réglé ko mm-hmm. dana xam lu defam koy ko leeree ne amul kenn ku koy réglé boo mooy tuur bu def lu ko bakkanam bëgg hadis ji ñaax na ñu ci jàppa dalal ku ne ci jafe-jafe waa xam ne dafa ñàkk masalan te yàlla dige ci ci làmmiñ yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne ki jàppandalal ko ne ci jafe-jafe waramu ñàkk daawa lu mel ni ñàkk yàlla dana jàppandal koo koy def loolu ci àdduna ci àllaaxira ki ñàkk nag ba mënta fay bor léeg-léeg lam ñàkk ba mënu koo fay yow la ko yore mm-hmm. léeg-léeg lam ñàkk ba mënu koo fay mm-hmm. keneen la ko yore mm-hmm. su fekkee ne ñàkk a tax mënut laa fay mm. nga muñal ko mm. yow farata la ci yow mm. yàlla moo ne wa in kaana lu usrati fa nadiratu ilaa maysara su fekkee borom ñàkk la borom jafe-jafe war nañ koo xaaral war nañ koo muñal ba mu mën hmm. kon loolu yow hmm. yow la adressé hmm. nga déggee ci ne bu la nit yoree lee mu leer na la ne xamut mun la fay danga nut nga di ko yóbbu ci tribunal waa ci yoon te ñu di ko tëj ndax da ngay gën a jafe te alxuraan na la nga muñal ko kon muñal ko farata la ci yow bu fekkee la yoreel nag hmm. yow nga def intervention pour hmm. kooku mu yëg ko hmm. sunna la dañ ko sopp loolu nag nga gis ne kam yoreel dañ ko bëgg a yóbbu ci yoon dañ ko bëgg a lor comment na nga intervenir sa kéemtalaayu kàttan dafay nekk xalaat dafay nekk xalaat Hmm. Hmm. kon hmm. jàppandalal ku ne ci jafe-jafe yoonam rëy na lool ndax yoonam ci dañ ko ñaari yoon am na ci àdduna am na yoon ci àllaaxira xam nañ ne ki njëkk a tudd mooy man nafasa an muminin kurbatan ku al muyassiru ala al muxsiri moom boo ko génnee ci jafe-jafe mhm. ba pare jàpp nelal ko mhm. te nag kii yëgati lor rek mhm. baax na waaye ki yëgati lor ba pare xewal sos teg ca yiw ba ko gënati kële moom dafa la dindi lor rek kii nag dafa la jàpp nelal moo tax ki jàppandalu mu fay ko ñaari fay fayu àdduna ak fayu àllaax moo tax mu ne man yassara ala muhsinin yassara allahu alayhi fi dunya wal aaxira te taysir duur na rek mooy nga muñal ko waaye mën naa yegg ci nga dimbali ko baal ko sax xam na yoreel mën naa am sax nga wutal ko sax lu mu jàpp yëpp danga dugg ci tey si ndax tey si yaatu ndax ñuy ñaan tey si buñ kam ñu ñaan ci xisbul baxri imaamu Shaamili rahmatullah alayhi bokk ci wird tariqa Cheikh Sidi Ahmed Tijani radiyallahu anhu allahumma yassir lana umuurana maa mm-hmm. raaxati quluubina wa abdaanina Mm-hmm. dañ jàngee ci hadis ji mm. alxaqu ala sikri mm. ñaax gi yonentu di ñaax mm. jullit yëpp mm-hmm. ci ñuy suturaal seen borom mm-hmm. suturaal seen borom sutura lu baax la imaam ibn ataillahi sakandari nee na sutura ñaar la asukru asukru hmm. fi lmaasiyati hmm. wa sitru hmm. an ilmaasiyati asitru fi lmaasiyati mu ne amatu naas yi ñoo ko ñi nga xam ne bëgg nañu suturaa bu fekkee ne ñu ngi ci lu neexul yàlla lu tax ñu bëgg yàlla suturaal leen mooy xasiyata sukuutihim mm-hmm. ragal gi ñu ragalal wat mm-hmm. ci bëti nit ñi mm-hmm. maanaam bëgguñ ko leen xeeb boo tax ñu bëgg yàlla subhaanahu wa taala kenn du leen gis ci ñaawtiir yu ñu dina amatu naas yi ñoo loolu waaye xaasatu naas ñoom assitru anil maasiya lañ moom mooy yàlla suturaal leen ba duñ mën a moy bëgg ñu yàlla xeeb ki bañ nit ñi xeeb ko ki bañ yàlla xeeb ko bokkul ki bañ nit ñi jéppi ko ndax ñu ci li neexul borom la utee nag ki bañ yàlla jéppi ko ndax ñu ci li neexul borom la dañ yàlla dimbale suturaal bi ko duñ ko mën a mooy yàlla satara musliman satarahu llaahu fi dunya wal aaxirati képp ku suturaal ab ko ci àdduna ku nekk bu seetee ne am na loo bu sañoon kenn du ko xam bu gisee ku mel na moom war naa xool boppam balaa koo weer ñu ne sutura nag la sutura soo xam ne yiw la sutura soo xam ne xay la mm-hmm. ak sutura soo xam ndax yiw la wala xay la mm-hmm. gis nga waay joo xam ne borom jikko la mm. borom diine la mm. jëpp naw la mm. nga gis ko mu def njuumte goo xam ne daf koo def ngir ne euh, nit la te mën naa réccu mm-hmm. yàlla baal ko hmm. te boo ko weeree hmm. da ko lor hmm. nga daal di ko suturaal ndax am na ñoo xam ne soo leen weeree non seulement da ko da nga leen lor waaye koo xam ne ñëpp ko naw suñ ko weeree ne moom ñëpp a yem dafay tax ñuy bonoon gën a bon tax ñuy bëggoon a baax ko seen gëm ak seen xol yàggagul fenn bi hmm. seytaan yi mën leen dina ah, gis nga borom hmm. xam-xam sàngam sax am koy def kilifa hmm. sàngam sax am koy def ngay gis nit ji di ko layee léeg-léeg gis jigéen ju teg greffage génn bopp neen nga am mèche génn bopp neen nga am émaillé dégg nga nga am dagg ay yéenam wala muy def yoo xam ne lislaam daf koy tere boo waxee mu ne ah man dem naa kër sëriñ bi jabaram yëpp dañuy meesu dañuy nangam ko defee comme jamono kilifaam koy def rek ñu jàpp ne lu waa lu lu jaadu la moo tax mbaax bi muy war war ñëpp kilifa yi la gën a war ak nit ñi dañ leen di roy bon li muy bon bon dëkk lépp li muy bon ci ñëpp yëpp ki nga nekk kilifa hmm. nga xam ne lii njuumte la hmm. hmm. dafa juum njuumte gi ci xam ki nga te gi dafa nekk loo xam ne dafay laal xaqi jàmbur mën a lor sax ab société léeg-léeg hmm. mbaa kenn mbaa ñenn ci société bi hmm. kooku kenn du suturaal hmm. wala boog war nañoo dem ca fa nga xam ne buñ fa demee bu fayu pour mu fayu te suturaalee ci jëpp it sutura sa waxta làmb waxta matale waxta matale ni ki gis nañ koo xam ne bi ñu cib école di jàggale te la muy jàngal xale yi bokkutam la leen war a jàngal hmm. wala da muy jëflante xale yi bokkut ak leen war a jëflante ñoom hmm. wala bu leen di abusé hmm. wala ba ngay dugal ci yëf yi loo xam ne bokk ci wala gis nañ ko muy jël ger ngir jox xale yi dot ñu leen war a jox dañoo war a dem ca directeur ba pour ñu faj fajowul bi dem ca yoon fa nga xam ne xam nañ ne bu fa demee bu faj bu yëpp fajoo dañu weer ko ci mi ba yëpp xam hmm. Hmm. Hmm. nga gis xale boo xam ne mu ngi def loo xam ne nga ne lii kilifaam yëgul ko lu ko mën a yàqal la nga dem ci kilifaam wax ko dem ci kilifaam waaye boo gisee xale muy def lu jaaduwut waxut kilifaam mu gën a yàqu te ki nga gis ko mu toog Moulina wala yu mel noonu da ngaa suturaa yaa yaa ngi yaa ngi yaa ngi participé ci loo xam ne dana yàq xarit bi loolu bàkkaar la bi da nga gis dara waaye xamuloo ne ko moo gën wala weer ko moo gën li cosaan boobu moo nga suturaal cosaanu sutura mooy yiw loolu ci asar te ma juum ba jéggale moo gën a sopp ñeel ma ci ma juum ba mbugal maanaam jéggal ku ñu war a moo gën mbugal ku ñu warta mbugal te yàlla yi dañuy boole ci junne yu ci bokkut moo gën a wóor génne ci kenn ku ci bokk junne yu ci yu dul waliyo nga rafet njort ci ñoom ba jàpp ne ay waliyo lañ moo gën nga génnee kenn koo xam ne ak wàllu yu ci daayiratul awliya hmm. yonent wax ne ne yàlla nee na hmm. ku ma doonool ab wàllu déclaré naa la xale hmm. nag balaa ngaa weddi ne diw wàllu yu la amuloo ci lu la leer rafetal jot boo gisee nag lu safaan ak sharia te mu leer na lii lu safaan ak sharia la nga adressé ko adressé ko nag du tax rek nga jàpp ne mm-hmm. kii def na lu safaanoog rek du waliyu waliyu mm-hmm. amul isbatu mm-hmm. amul loo yóbbu nit ci kufru wala bakkaar yu mag ya mag ndax waliyu bu amul isbatu it du xifdu da ca sax waaw danañ jàngee ci xadis ji it ne yàlla sama borom du seetaan koo xam ne mi ngi ci service u jaamam yi ndax yàlla ndimbalu jaam yi sama borom moo ko méngoo képp nag kum gis nga ne ci waar woowee xamal ne dana méngoo say mbir yow ci xadduna ak ci àllaaxira moo tax mu ne yàlla ci dimbalu jaam bi mm-hmm. allahu fi awdi al abdi maa mm-hmm. kaana al abdu fi awdi axi mm-hmm. ci dimbalu jaam bi waaw ak ndimbal la lum rëy rëy ak ndimbal la lum tuuti tuuti waaw bu yéem ndimbal ndax yàllaa ko jaarale ci sa loxo mënoon ngaa nekk yow kii aju dimbali mhm. ki ajoo dimbali mhm. waaye bul xeeb dimbali ba ne ah lii du dara mën na ko defal boppam mhm. waaye nit ñi benn nitu yàlla yowmal qiyaamati dana dikk am waa joo xam ne doy waar la woon malaaka yi jël ko nar ko yóbbu safara mu ne leen man taalibe Abu Yazid la البسطامي شو وفاة جوته أبو يزيد أبو يزيد البسطامي ترى طيفون أبو يزيد لوسيبي ñu ne ko yow li nga bone woon nga nekk taalibi Abu Yazid mm-hmm. Abu Yazid ni mu meloon loolu tane ñu laaj Abu Yazid ne kii nee sa taalibi la mm-hmm. Abu Yazid xool xool xàmmeewut lu kii dee taalibe kooku ne ko bés borom bu kama sa yar bi ngay daqee sa fas wala sa waruwaay daanu ba for ko jox la ko kon liggéeyal naa la mu ne wax na dëgg ba leen ko sama taalibe parce que njëriñ loolu mu njëriñ waaye yàlla loolu ci laa amee shafaatoon te nit ki bu mu benn njëriñ mm-hmm. gis kuy war woto nga dimbale ko mm-hmm. ba koo xam ne ma nga euh, bëgg a jël dara nga jottali ko mm-hmm. yooyu yëpp ndimbal nag li nga xam ne moom lay santaane mooy ndimbal lu dellu ci baax waaye du ndimbal lu dellu ci safaan sama borom wax ni suratul maayida wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala lismi wal udwan su fekkee ndimbal dafa dellu ci bàkkaar day xaraam wala taawanu ala lismi wala udwan li la wax baax ak rafetal ci la war a jub ndax wa axsinu allahu yuhibbul muxsinin Mm-hmm. buntu ndimbal buntu bu yaatu la li mm-hmm. eh, ñu yàlla war a dimbale li ñu yàlla war a dimbale hadis jaam yoo màndu yàlla mm-hmm. matuk màndu yàlla ndax ku nekk la nga def rek wan la la ne dana la fay fay bu niroog la nga def donte ak fayam moo gën a rëy liñ def loolu mm-hmm. subhanahu wa taala mm-hmm. hmm? mm-hmm. li àdduna la yem fayu yàlla gi nag moom amul yem waaye ndax àllaaxira kat xaalidiina fiihaa abadan xaalidiina fiihaa abadan hadis ji mi ngi jàngale eh, yittewoo gi ñu war a yittewoo xam-xam ñu mm-hmm. ñaax jaam mm-hmm. euh, bi mm-hmm. yittewoo gi ñu war a yittewoo euh, xam-xam hmm? moo tax mu ne képp koo xam ne soobu naaw yoon di ci sàkku xam-xam yàlla dana ko tàggatal aw yoon Hmm. Hmm. Hmm. da ko yombalal aw yoon ci sababu xam-xam ci sababu sóobu gam ca sóobu da ko yombalal aw yoon bu ko ba aljanna moo tax kii sàkku xam-xam da ko sàkku ngir yàlla ndax ak jaamu la yàlla moo ne faalam moo ne iqra kon ki koy sàkku bu ko sàkkuwul ngir yàlla mën naa am bu lor ko mhm. doonte xam-xam moom mhm. ala kulli xaali nam du jëriñ waaye du jaam bi gën a sellalee mhm. mu gën a bari njëriñ bu sellalee nag seytaane am fu bajaar ndax seytaane kenn ëpp ko xam-xam ay xam-xamu jëriñu ko dara ndax xam-xam yàgg gis la rek ah. yàlla yàgg gis la ak yàgg fekkee wa allama aadama lasmaa ak kullaha la yàlla wax aadama yàlla mu ne moo ko xamal tur yi ku la ëpp lu xam ci tur rek ëpp la xam-xam seytaane ñi fi nekk ñëpp mu ne ak ñoom di leen fitnaal xam na seen tur kon yàgg na fi xam na waaye xam xam-xamam jubalewul ko fi ko yàlla jubale ko jubale moom mm. fi ko neex mm. ndax moom ku ko topp rek mm. mën naa sànk mm-hmm. léeg-léeg nag nit sàkku xam-xam te yàlla du tax sax mm-hmm. waaye yàlla dabaatal ko man tariqa lig ci bàyyi mm-hmm. ba soppat kookee ak xam-xamam jëm ci yàlla moom la nitu yàlla ki di wax naan talabna al ilma li gayrillaahi fa abaa an yakuna illaa lillaahi ne mm. ma yiwut xam-xam yàlla taxutoon mm. waaye xam-xam bañ na mm. lu dul nekkal nekkal mm-hmm. yàlla mm-hmm. loolu la ñuy ci baax mm-hmm. atijaana dee la am de ahlu ci baax yi bëriwul ahlu li ci baax yi bëriwul mooy ñi nga xam ne dañoo soobu woon weneen yoon yàlla fekk leen fa jël leen def leen ay nitam dañ ci cité comme Seydina Omar ibn Khattab parce que buy dugg ci lislaam hmm. la ko jëlee woon këram mooy rey yonent bi hmm. sallallahu alayhi wa sallam bu dégg la ko la taxoon bu jóg hmm. mooy rey yonent bi moom dajee ko mu ne ko balaa ngaa dem ci yonent bi demal sa kër sa mbokk Faatimatu bintul Xattaab ak euh, dégg jëkkëram euh, di sa cousin ñoom dugg nañ ci lislaam demee di leen bi ngeen xamee xisa bi ba gannaaw ga mu gis alquran di doon jàng di taaha mm. ma zana aleyka alquran li tashqa mm. te la lislaam duggee ci xolam kooku mm. ci baaw la bu tuub loolu li maalikum di diinaar police yi bu sonal nit ñi moom bu ko dal doomam faatu ak jabar gannaaw bu jabaram faatoo ak gént gëm gént ci la ko yàlla soppee mel ni Fadil ibni Iyaad nga mm-hmm. xam ne noo liir téere daanaka mm-hmm. boo ko fekkoon mm-hmm. wala Fadil ibni Iyaad Fadil ibni Iyaad moom it addu kalpe la woon parce buy dem ci këru euh, as jigéen ngir def fa yëfu saay-saay di tëb biir ba di ca la euh, waaye euh, dégg laaya ji alam yaa ni lilladiina aamanuu an taxshaa quluubuhum li dikrillaah te la daa dox bu yeewoo da ko yàlla jox da ko fàtte mm-hmm. bàyyi la deew ji loolu nit ci baaw mm-hmm. ju deew lañ tam mm-hmm. allahu yattabi ilayhi man yashaa la wax yattabi ju ëpp ci nit ñi nag loolu ihtidaay wala naa basili wala yahdi ilayhi man yunib waaye ku góorgóorlu mu yeggale la walladina jaahadu fii na lanahdiyannahum subulana waaye lépp ci nit ñi foofu lañ bokk lig mm-hmm. ci baaw gannaaw ñu tuutee ci bokk mm-hmm. jaam muy wut xam-xam mm-hmm. na ko sellalal ñaan yàlla ngir mu mën a eh, jëriñu yoon yi nga xam ne nag ñoom la ñuy sóobu jëm ci xam-xam am na yoonu xis na yoonu maana na yoon wuñ yëg am na yoon wax maanaam yoon wuñ wuñ yëg am yoon wuñ dul hmm. hmm. xam ne yoonu biir la hmm. yoon wi ñuy dox mooy jog gi jog ñun ci jàkka ji dem ci daara ja ci école ba waaye xam ne yoonu maanaa nag mooy giñ koy déggee eh, ci ñi xam ak comprendre giñ koy comprendre dégg nga yooyu yëpp yoonu mhm. yoonu yoon yoonu maanaa la mhm. wala liir buñ liiru téere mhm. wala déglu buñ déglu ay waxtaan yooyu yooyu yëpp sax nag boole na yoonu xis ak yoonu maanaa ndax déglu nga rek xisu la xam nga rek maanaa la du noonu képp koo xam ne nag soobu nga ci yoon yi yàlla nan la lay yombalal yow la aljanna mm-hmm. mooy daf lay yombalal yoonu xam doo mm-hmm. ku xam mm-hmm. war a jëfe ku jëfe war a sellal ku jëfe sellal yàlla nangul la te yàlla ku nangul yóbbu la aljanna moo tax di tu euh, asar ba dee euh, annaasu kulluhum halkaa nit ñi ñëpp a xalku dégg nga ñu ne mam des ñi xam illa al aalimin wala aalimadu mm. kulluhum halka li xam mm. ñëpp halku mm-hmm. illa al aamilina mm-hmm. ba mu des ñiy jëfee seen mm-hmm. xam-xam wala aamiluuna kulluhum halka ñiy jëfee sax ñëpp halku illa al muxlisina dara ñiy jëf te yàlla tax mu ne waaye wal muxlisuuna ala xatarin azim xataa ñiy jëf te yàlla tax sax ñun ci xabar ndax weeru koor la fekk jant sowut juur hmm. bu weesuwut hmm. kuy jéggi ndox hmm. fekk yeggoo ca tefes la bu doo wax dëgg ci da ci lab yàlla buñ juum yàlla buñ lab yaa rabbi kon nag xam-xam luñ mën a def wut ko moom boobu la ndax ki xam-xam boobu te am àdduna sax ma du du daraam du nëbbatu mm-hmm. ndax lu mu bëgg a def rek dana seet ka ko xam xam-xam bu mm-hmm. mm-hmm. ma gën xalal ndax xalal mm. yaa koy garde waaye xam-xam moom moo lay garde xalal noo ko gën a joxe muy mm. wàññeeku xalal noo ko gën a joxe muy yokk alal boo dee fii nga koy bàyyi hmm. xam-xam nag da koy yóbbaale hmm. alal daf lay diisal yowmal qiyaamati hmm. xam-xam nag daf lay woyofal di la leeral fan nga a teg sa tànk ba aljanna ba tax alal nag xam-xam bokkul wut baax na waaye wut ba ca kër mooy wut xam-xam te buñ wut dara dara ba tàqali ñoom wut xam-xam boo xamee looy wut mu yomb la boo xamut looy wut ba mooy tuut bu jafe hmm. te njëriñ la du mat lu dul bu ca borom xam-xam duggee nekkal hmm. borom xam-xam boobu hmm. réew waaye yëpp nag du mënta du mën a am lu dul ci tasxilullaahi tabaaraka wa taala wal nañu yàlla moo la yombalal yàlla <coughs> barke yonent sallallahu alayhi wa sallam daañu taxaw foofu ba suba ak jàmm ala sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sëñ bi da nga xaw a sonn. alhamdulilah.